yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjëkki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha Cheikh mi nga xam ne mooy sama turandoo dama sant yàlla ci tudd gi ñu ko tudde bisam day tay jii muy doon jëmm joo xam ne nag kon dama ciy seede seede su gàtt rek ndax euh, moom daanaka lu soxel jot rek waaye waajalu ma woon dara dama ne woon sëñ Moustapha nañ ma yëgal waaye sëñ Mourou Moustapha moom loo su soxel jot rek ci taarix da ci mën a ko seede doonoon na jëmm joo xam ne ni ko sëñ Abdul Xaadir Mbàkke daa ma waxee ne sa turandoo lu wax ci moom ci baax bàyyi nañ ci dara waaw loolu la lool la ma daa wax sa turandoo lu ñu wax ci moom ci baax bàyyi nañ ci dara noonu la ko yàlla bindee woon doonoon na koo xam ne boo ko doon melal dangay wax ne ku fees bopp la woon loolu doy na ci seere guddik talaata gi muy indi sëñ bi fii nga xam ne biñ koy yëg dix heures ci guddi war naa jot diggante boo ko ci mën a lijjanti lool ba ba lépp mën a taxaw bañ mën a indi sëñ bi ba mën a toppatoo lépp ba fajar laataa jot loolu ca waxtoo woowu ku xam ni jamono ji demee woon booba da nga xam fees bopp sëñ Mourou Moustapha ndax booba mësuma di gis sëñ mu ne ma laaj naa ko ne ko ne ko waaw booba moom loolu noo ko defee noo ko mu ne ko booba de damaa xam ne fu tiis di àgg ma yor naa ko waaye nag damaa damaa xam ne sëñ bi yoroon boppam mbiram ma jóg rek dox jëm ci loolu lépp daal di daal di ubbiku daal yomb léegi bu ko defee nag nga xam ne kon moom am na lu daje woon ci moom lu jafe mooy bopp fees dell ànd ak ak ak ak ànd ak ji basiiratu waaw maanaam li ñuy wax vision ku amoon gisu xol ndax ba muy laaj titre foncier bi ci dëkk bi loolu boo yëngu ba amutoon gis-gis xelit néew na loolu mu ànd ak fit ku amu fit la ndax bu amutoonu fit ju jumaa ji rek doy na ci firnde jumaa ji ci waxtu woowee xadd ko ak mboop rek yombut jiim ko fettañ rek yombut ku am sa xel di ko xalaat di ko xëcc muy mat téeméeri mètre ci waxtu woowa te booba ab dërëm mënta am fenn ndax seex yi ñu gën a naw booba leen suñu Madu Musaa sas muy mel ne sëñ mat jëmm sàmba ak mooy juróomi jinni juróomi jinni la sas yi gën a ndang booba foofu la tolloon kon xoo kooku xam nga ne gis gisu euh, loolu moo lay tegtal aw fitam ku am fit la ku am xel la la ca dolli ko nag mooy ku ku teeyoon la tanangoo diisoo daf daa wax ne bu ma juumee rek mbooloo juum loolu la daa wax ndax sëñ Modou Gelangel daal ma ko nettali sëñ sëñ Modou saa balaa wax dana tegale ay guddi yoo xam ne ku ne dana wax ak yow bu waxee ñoom ñëpp nag mujj sëñ waaye sëñ waaye dana wax ak sëñ Omar Mbàkke Gelangel ak sëñ Sëtu Jaxate sëñ Mbay Jaxate sëñ Laay Jóob leew naag mag ñooñu noonu nga leen di toppi bañ doon groupe bu gudd boo xam ne ku ne dana la wax ne waaw mbir di sàngam de mu xam yow dama lu ci sa xalaat bu ñëw ñëpp daje xale mu mujj sëñ Basiiru ne ko yow lu ciy sa xalaat diw di doon na wax nangam waaye diw di doon waaye yow li nga wax rek laay ci laay laay def loola dara fas loolu taxan na yàlla dimbali ko ba du ba du juum moo tax ma ne fu ma juumee rek mbooloo juum amoon na xikkam lool te mën a te mën a am lu xik man koo wax lool bokk na ci xikkam yi mu daa wax ma jëlee ko ci mag ñi dadaa wax ne nit bu la nit bu la bu fekkee yemalewu kenn nga yemale ko ñëpp boo yeexee mu ëpp la mbor <laughs> seetal loolu boobu xekkam rek daana waxe ni nit bu la bëggee nang na koy mayu lay seet beneen xekkam nga dégg naa ci sëñ Abdoulaye mu ne sëñ Mourou Sa na ko wax ne ko yet yet ngi koy mu ne ko bala kilifa jegeelee jegeelee boppam na koy wattandiku ci yett mbóotam moom génneegul ak alalam ju yees ju ne ak gan kum fonk <laughs> na foofu bokkul la amin wa bi xeyrin asalaamaaleykum wa rahmatulah taxoon sëriñ rabbil alamin jekki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat la yawat ña daawoote ña daawaate mustawa ngil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu te bul faale ka wuy see ka farjekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw la yawat ña daawoote ña daawaate mustawa